buñ sañoon ñu defaral ñu ko xañ na nag sonn nañ trop ci li nga xam ni mooy euh, tali yi ak transporteurs yi mais ci biir màggal gi li nga xam moo jógee Diourbel boo jógee boo jógee Kaolack nga xam ñu jógee Ziguinchor ñu jógee Banjul su ñëwee ba Diourbel ba rompoint bi jaar ci rocade bi jëm dëkk bi ñuy wax Gàppo ci ginnaaw Diourbel nga xam doo jaar Diourbel am na benn pont boo xam dafa dafa reposé dafa reposer ci kanam reposer ci ginnaaw boo génnee rond bi rek loolu nag interpellé na ci gouverneur wax nañ ko ko wax nañ ko Azerut xultu wax ko préfet bi démb ba démb ñu rappelé ko ko mais ba démb ci suba defaraguñ ko boo duggee biir Diourbel ci biir Diourbel ci boppam parce que ñoom jaar na fa def entretien ba yaakaar naa ñi ngi toll di na dakaar mais dañoo dem rek ndoxu taw ñëw am yeneen yoo xam da ko faa yàq si biir Jurbel bu ñi may wax waa Jurbel xam nañ ko mooy si coordonné lycée Cheikh Amadou Bamba bi ba ni nga ëgsee ci maire bu Jurbel am na benn pont boo xam dafa reposer foofu tamit loo xam ne du doy waar la tey day créer accident ci wetu làmbi biir Jurbel ci yooyu yoon bari na ci ci corniche boobu tamit bari na ay trou yoo xam ni ci kaw tëli dafa dafa toj ba nga xam ne bu ñu sañoon daal entretien Ageroute bi jaar foofa pour defar ko yeneen ci des nag lépp loo xam ni yaakaar nañ ni luy moyen accident la ñu jéem cee góorgóorlu ci li nga xam moom moon moom lañ yaakaar ni mooy am li xam ne moom la ñu dig nag ci tëli yooyu ñun lépp lu ñu dig rek ñun dañ koy rafetlu di yaakaar mu ñëw ndax ñun tëli rek ak làmp mooy suñu intérêt ndax ñun suñu bureau ci kaw tëli bi la parce que bu ñu gisee yoon yu bëree bëri ndox mi nangu na ko pour accessibilité bi loolu tamit dina indi ay yàq-yàq oto li nu mel euh, yoon yooyu dafa métti lool démb man constaté naa ko. merci Pape Fara loolu nga wax dëgg la loolu maa ngi ciy waxtaan léegi ak maam biram ndax Touba ren képp koo xam oto nga yor waxuma chauffeur transport rek mais képp koo xam oto nga yor na ngay moytu wàcc ndax ndox mi bari na te wax dëgg yàlla fi ñu sëkkit bari na te fépp fu ñu sëkk ndox nekk fa boo fa àggee dafay bëlus mhm. route nationale bii nga xam mooy autoroute Touba bii. moo gën a andi difficulté mooy gën a indi lii indi difficulté ci la bokk. parce que ci nga xam ne fii ci wetu communauté rurale bi. boo fa demee dafa am benn pont bu fa nekkoon boo xam ndox la doon def dafa yàqu. léegi na ñu ngi koy toj pour di ko defar ba nga xam ñun ñëpp ci benn vent la ñuy jaar soo rombee station Total ba ni nga rombee communauté rurale bi gis ngeen benn vent la. mais lu dee dee nga def foofu une heure de temps diggante Mbacke ak Touba te loo xam ne yaa ngi ci doon def 15 minutes wala 10 minutes nga di fa def une heure bu màggal gi ñëwee. sa mën nga faa def trois heures de temps wala quatre heures de temps te boo wàccee tamit li biir tubaa mbedd yi bari na ndox ndox boo xam ni vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi ci prête attention ñëpp nag du chauffeur transport bi muy chauffeur particulier bi képp koo xam yaa ngi wàcc daal na nga xool fi nga wàcc bu baax a baax ndax mën ngaa wàcc la nga doon yàkkamti gën koo yeex fop kon jàpp nañ ni biir tubaa tamit am na problème ci wàllu ndox waa am na problème ci wàllu tali très bien ñu ma dellu si waat rek tuuti en arrière sëñ euh, sëñ Sall euh, jamono yee gis nañu euh, mbas meeg ni mu laale woon àddina yëpp secteur transport yi itam bokk nañu ci secteur yi mu gën a laal gisoon nañ fi ay dawalkat yoo xam ne taxawoon nañu ne jamono ji metti woon na lool ndax mën nga dellu si waat ci fi ne nii bu la doon def bilan bi fan ngeen toll. waaw jërëjëf loolu de dama ci dama ci massawu sax pour transporteur ak pour chauffeur waaye maa ngi ci biir. comme seen kilifa laa dama leen ndax ñoom bu fekkente nit ñi dañ koo suivre à cinquante pour cent ñoom dañ ko suivre à cent pour cent parce que ñoom dañ leen a téye woon carrément justement interurbain dañ leen a woon dañoo tëjoon gare routière yi ni dëkk ak dëkk kenn du dem ñu toog trois mois yoo xam demuñu fenn tëj gare routière yi ñenn ñu sax am na ñoo xam ñu mel ni tata ak urbain yi dañ leen a amoon limite boo xam ne dañ leen ko defaloon ak taxi ñii di yeb lii ñii di yeb lii mais doon xëy di for seen wërsëg mais ñun ñi nga xam ñoo yor interurbain dañ ñoo téye woon a trois mois mu metti lool nag ñu leen koy masaw mais wax dëgg yàlla nag bi nga xam nag transporteurs yi jóg nañ ak chauffeur si tombe nga xam tamit nit ñi tamit am na ñoo xam dañoo kale woon Touba ñii kale Dakar ñii kale kenn ku ne bi ñuy jóg dafa fekk ñëpp soxla ko bi ñu jógee tamit defuñu ko woon ngir violence wala ngir bañ bëgg lu ban wala ngir bëgg lu ban dari nit ki su demee ba nga xam dafay feebar daf ko bëgg indil beneen feebar mm-hmm. dafay taxaw acte bi mu am mu ko am nag mooy taxaw ci tëli bi wane sa bopp ñu ñu ni defan rek ak yàq du yàq ñun duñu yàq parce que lu ñu defar ci tëli ñun lañ ko defar lu ñu defar ci lampe yi duñu la ko yàqal mais nag nit bu toogee trois mois mm-hmm. mu dig ndimbal joxu ko mm-hmm. ni la da toog yeneen trois mois muy waaj a waxaat ñu yaakaar dañuy kiyaat mm-hmm. génn rek lañ mën a def te boobu loolu rek moo ko doon saafara biñ ko defee dañ ci ànd ak transporteur ak chauffeur mais bu ñu desee ci mbas mi ba léegi comme ni nga ko waxee noonu c'est vrai que am na impact reprendre ngeen si activité yi. waaw ñu ngi jëm ci màggal am na reportage bu fi maam Birame def ci garage bi. Mhm. yow c'est vrai que yaa ngi ak sa masque yi noonu sa poche mais li gis mooy sa gars yi takkul masque te ñu ngi bàyyi clients yi di dugg ci oto yi sans takk masque lu tax. non sama gars yi ñu ngi takk sa masque da wax ni man am na ci loo xam ni clients yi laa koy teg xam nga ñun. mais yéen moom oto yi bu ngeen leen bàyyi ñu dugg. sa na ci biir oto bi bala ngaa dugg ci biir oto bi di nga takk mais su fekkee nag chauffeur dafa yor oto boo xam ne 65 places la wala mu yor 19 places wala 7 places bi muy dugg mu ne ko takkal sa masque mu dem ba ci biir tollu Diourbel wala tollu Bambey tàngooru jëm mu tekki ko chauffeur bi am na loo xam mënu ko contrôler. am na mais am na ñuy dugg dooguma la li mu wax ni dafa am am na ñoo xam ne ci gare routière da nga bi reportage bi jàll na client bi day ñëw. dugg sans masque ñu bàyyi ko dugg ci loolu c'est une ko weddi ñu ngi ñu ngi sax Aziz Touré mi nga xam ne ak président IDICA président régional bi ñu ngi leen di nuyu ci reportage bi nga xam moom lañ def Touba waaye dama lay wax ni la bépp mesure boo xam dañ koy jël ci wàllu transport muy Diourbel muy Touba muy Mbacké muy Bambey nit bala moo dugg ci oto dafa war a takk masque mais c'est pas le cas même urbain ah. fii yaa ngi gis taxi mbaar yi oto yi di romb nii ñi ci biir kenn takku fi masque waaw xam nga foofu laay waxee foofu laay wax ni la ñun bu ñu xasee dugal nit ki ci oto bi mhm. mu dugg ba ci biir tekki maskam doo dem ba ci biir nga di ko dóor li koy mën a mais na wàcc nga na ah? wàccal non waaw d'accord na wàcc mais bu fekkee nit da nga ko ci àll ba doo ko naa ko takkal masque mu bañ parce que mën nga koo wàcce foo ne insécurité a ngi koy def am ku ñëw ba ci poste gendarmerie wala nag nga taxaw dénoncer kenn c'est sûr que ñu koy def parce que toujours nit interme la parce que dañ doon bu njëkk bi dañ doon jàpp chauffeur si pour clients yi ñu di leen jàpp ci la ministre des transports Omar Youm ñun interpellé ko la waxee ni client bi nga xam moo def fautam na siiwar conséquence bi mu def mais su fekkente nit ki dafa yëg cootam avant mu yëg su fekkee am na lu koy def maa ngi wax waa gare routière Touba ñu jël seeni i képp koo xam da nga fa yéegati bala ngaa yéegati oto mu takk maskam mais nag ñun li nu mënul nag moo yor 65 personne dem ba ci àll bi nit tàngoor yu jàpp ko mu tekki maskam nga ko takkal mu lànk mm-hmm. li nga man mooy dem boo nekkee ci agence gendarme wala police da ko man doon nga mën koo boole ni ko kii moo ko def suñ ko wàccewul wala ñu jox defal ko intervention Faty euh, ba léegi rek man damay ñëw wax ci wàllu mbas mi Faty mu ngi dem wax manifestation su fi am mais mbas mi tamit su lawee dem ci yenn diwaan yi yéen la ñu ci bëri dañ dem rëcc di génn di dem di ak seen i oto di jaar ci àll bi ndax sensibilisation moo doyuloon wala ñàkk gëm feebar bi la waa loolu ñu sant yàlla ndax amul ind inter urbain boo xam ne gis nga loolu mu def ko ñi ko doon def ñun bokkuñ ci transport parce que ñooñu la ñuy wooye alu Dakar allo Dakar nag bokkul ci secteur transport parce que amul licence mais amu leen benn interurbain boo xam gis ngeen ko mu jóge ji jurubel wala dem feneen ci interurbain ñu koy woowee interurbain mu yor transport amul sofër si mention spéciale ci transporteur ci wàllu mbas mi wax dëgg yàlla li nga gisoon ñëpp ay particulier ngay gis ñooñu la ñuy woowee allo Dakar te ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo yàq transport bi amuñu licence pour war a def transport amuñ mokk ci de transport mais jamono ji bu ñu ubbee tamit eh, ne nañu jël place debout yeeg ci ñëpp laa koy généraliser ak njage njaay yi mais da ngay gis dañuy surcharge ba mu fees ba nit ñi di lang te mbas mi jugee ko fi est-ce que yooyu tamit seen chauffeurs yi yéen leen di wax ñu bàyyi ci xel ñuy jël nombre waaw dafay am loo xam nag ñun dinañ sensibiliser wax nit ñi li ñu war a wax mais dafa am agent yoo xam ñoo nekk ci télé bi pour loolu nit ki su defee lu mu war def ñun ànduñu ci kuy def loo xam ni tegut yoon oto bi 19 places leer bala ngaa ci gare routière 19 places ngay yem hmm. su fekkee 35 nga bala ngaa fa génn ci yor 35 leen soo demee ba ci àll ba nag client bi nanguñu siisas ko mais ensemble bi ci télé bi moom moo war a taxaw ni ko eh da ngaa siisas wàcce client ba pare verbaliser ko mais ñun ci biir gare routière nag kenn du fi génn ci nombre ngay génn boo génne ba ci àll ba nag di def a neex loola ca a ca fekk yaay si war conséquence je pense que Serigne euh, problème bi li ko war a surtout mooy euh, suivi bi nga xam moo war a am ci liggéey bi parce que ñëpp xam nañ ni euh, wax nañ waxaat ko sensibilisation masque yi euh, njëriñ bi mu am. Euh, départ bi mooy sensibiliser mbokk chauffeurs yi comme ni nga waxe mais également ñenn ñi nga xam ne ni dañuy teg mesures yooyu fële doxalee nu ñu neexee comme ni ko Chérif Dia waxee sànq yaa yor sa woto euh, yow yaay responsable premier bi boo yàpp. ku amul nga ne ko amoos mas toogal parce que je pense que même Père Abdelaziz loolu wax sànq ci reportage nee na ñoom dinañ jëlaat yeneen mesure ba nga xam biir gaaru routière ba ku fa bëgg mbala sax euh, ñoom dañ lay yëg ci marché jox la pour nga mën a dugg donc ay mesures ardi la gaa euh, neex a waxtaan la laaj mais ku ci nekk rek defe naa buñ poussé nit ñi euh, ñu topp mesures yooyu noonu dinañ ko topp mais pour rek revenir ci beneen jë aspect muy comportement bi nga xam tey ji chauffeur si war na ko am bien sûr responsabilité bi ñëpp la mais ban jàngat ngeen def ci mbas mi ci loo xam te yéen seen biir chauffeur si soppi doxin lay laaj ba kenn ñaanu lu ni mel amaat mais di ngeen fagaru ci seen liggéey ba nga xam xamante bu ëllëgee bu amee lu taxaw impact bi ñuy wax sax peut-être du ngeen ko sentir trop maanaam organisation ci biir liggéey bi ci yorin woto bi ci comportement bi ci ni ñuy bañ joxe woto bi sa ku nekk xale yi yeeg yooyu ban organisation tey la secteur transport laaj ba nga xam ni impact bee ak yenn jafe-jafe yi du am. merci en tout cas mbas mi mën nañ cee def jàngat yu bari. Mhm. mën nañ cee dem am yar yu bari. ndax ñetti aspect mën naa ko ci gis képp koo xam nungu woon liggéey war ngaa nungoo liggéey képp koo xam da nga doon liggéey di ko yàq war ngay fexe ba la nga doon liggéey doo ko yàq kon jàpp naa ne mbas mi am na ci loo xam ne transporteur ak chauffeur suivre na ko ba nga xam bu ëllëgee bu même xaalisam bu ko dee yor sax dina xam fi mu koy def parce que loo xam ne daf laa xëy bett ñu la da ngay gaare un mois nga dem ba trois mois toogoon nga bis boo xam amoon nga cent mille nga yàq ko ci bis toogoon nga bis boo xam nga am cinquante mille nga yàq ko ci bis bi kon yaakaar naa mbas mi toog nga ba benn bis sa poos dara niw ci nga dem ba da ngay lebi ba ñu wax ni sax am na safar yoo xam dañ doon yalwaan naam ka yalwaan gi du question ni dañoo kii dañoo dem ba amatul lu ñu yor ñi ko doon def kenn rafetlu ko waaye kenn ñaawlu ko parce que nit ki am na foo xam bu muy tollit noonu rek la mën a jëfe waaye yaakaar naa ni tamit lépp loo xam dañ ko ci doon def ci mbas mii jàpp naa ni bu dee ak yàq la wala ñàkk bañ a liggéey yaakaar naa ne ñaar yëpp war res na ko cee xalaat mhm. muy transporteur muy chauffeur waaye muy bépp nit boo xam ne da ngaa nekk ci àdduna war nga cee jàngate lool mhm. nu ngoo liggéey ba pare li ngay liggéey doo ko yàq mhm. ndax gaspillage baaxul mais mbas mi xamoo jógee gu fi ba léegi waaw te bi ñuy woyofal affaire yi pour nit ñi reprendre activité yi ndax ku ne xam ne xamul kañ la fiy jógee dafa amoon ay matukaay yoo xam ne dañ ko waroon a jël ci gaar ceer yi dèjà bala ñoo dugg parce que ban koy doog def mois de juin boobu. bala ngaa dugg am na fooy raxasee sa loxo am na foo xamante ne aussi même ay gel ak yooyu. mais loolu gis nañ nit ñi bàyyi nañu. yow argument bi nga joxee ne tàngoor yi moom moo tax nit ñi dindi seen masque loolu aussi day loo xamante ni baaxul wala dégg ko ci nopp aussi baaxul parce que mën na bokk sax ci li yokk mbas mi. or li koy yokk mën na jëm bay kenn ñaan yàlla di dellusiwaat fi ñu jóge woon parce que ku ne xam na ni. weer yu ñu jóge bi ñu métti woon na trop ba laal na ñëpp bàyyiwul kenn rawatina comme ni nga waxee yi ñu doon def interurbain di jóge dëkk ak dëkk ndax état d'urgence bi nga xamante ni defoon nañ ko imposé woon nañ ko ci ñi nga xam au-delà du ministère transport wala intérieur wala santé yéen ñi nga xamante ni yéen a yor outil de travail bi te bu yàqoo yéen lay yéen yéen koy njëkk a yëg ngeen jiital xeex bi comme ni ko kilifa yi defee gis na fii sëñ Mountakha mi def moom ci boppam malgré chaleur bi day takk masque donc bu ñi ngi fi doon a takk waa sërëf jërëjëf comme ni nga ko waxee problème mu takk masque bi mu tàng dindi ko waxuma ne ci sëfoor si la ci passager yi non da nga ne passager yi la passager yi beneen bi des gare routière yi nga wax man sama gare routière ba ma yor Jurbel ndamuma ci maa ngi ciy sant yàlla te yaakaar naa na ma yore Jurbel noon la keneen yore Touba noon la keneen yore Mbàkke feneen mais soo demoon Jurbel tey jii masque yi ca commencement bi la ministre Omar Youm wooñu mu ñëw wax ñu carrément li ko waral ba pare jox ñu ay thermoflash ba léegi yéen a ngi koy jëfandikoo ba nëgëni nii jox nañu réseau kenn ku ne gare routière bu ne suñu la joxut cinq thermoflash jox nañ la quatre thermoflash man sama gare routière soo demoon ba fii ma lay wax nii thermoflash bala ngaa ñëw dinañ la jox nga laal gel dinañ la teg thermoflash bala ngay wax ak yow ñu di la enregistré ci manifeste yi bala ñu la enregistré da ngaa takk sa masque boo ko def di nga génn li gare routière bi ñun amuñu lenn loo xam ne boo demoon gaar bu ko neexoon moom bu subaa na ñëw def reportage gare routière Diourbel li may wax nii moo fa am ba fi ñu toll nii ci télé laay waxe ñi koy wax ni ñu ko dégg gare routière ku fa dem am na ñoo xam sax xamuñu loolu buñ dikkee dañ naan leen justement ñi jëm Gàmbi dañuy wax naan lii mooy lan da ngay leen di euh, dikk woo nit ki mu ñëw dikk ñu enregistré ko nga takk sa mas ñu jël thermostat teg la ba pare sel baa ngi tànko ministres yi ñu bëri justement daam Diop am na ay euh, raxasukaay yoo xam ne dañ na koo jox ba am na loo xam sax dañ koo teg en attendant liñ ci yor ëpp na vingt foo fépp foo xam ni oto dafay yabe teg nañ fa benn raxasukaay teg fa benn zel masque yi tamit lu ëpp ay masque masque yu bari mi ngi ci ku ne xam na ni fii ak weekend bi nit ñi di doon commencé ñëw di jóge fu nekk ci Sénégal di ñëw fii ci Touba est-ce que am ngeen ay campagne yéen ñi nga xamante ne yor régional bi ci wàllu transport bi ak seen collègue yi nekk à l'intérieur ngir sensibiliser nit ñi ngir ñuy jëfandikoo loolu nga xamante ne mooy masque yi mais respecter geste barrière yi. bërki démb rek yaakaar naa démb laay wax comme ni ko kii waxee dafa am suñ collègue bu gaañu woon fii ci Touba ñu ñëwoon ci. loolu moo teem def mais bërki démb tàmbali nañ ko tey ji yaakaar naa ne ña nga ci sa émission bi nga ma invité moo tax bokkuma ci mais ñi ngi ci ci biir gare routière ci biir garage taxi ak luy garage boo xam ne dafay jóge ci barab dem ci barab amu ci benn boo xam bu ñu bàyyi boo xam pour di sensibiliser même naam mas mi ngi wàññiku mais nag ñett yi dañu koo digal ba tey di def raxas say loxo ba mu set di takk sa masque di utiliser zel lépp dañu ko bàyyiwul lu ñu mën di bàyyi loolu bàyyiwul kon ñun liñ ci jëfandiku dañ ko jël te suñu wér-gi-yaram la parce que gis nañ suñu njariñ te lii nga xam ne mooy manifeste yi ñun suñu arrangement la ñun transporteur yi parce que fi ñu toll nit ki su fekkente ni dafa dugg ci gare routière bi départ suba mu fàtte bagage am buy dikk rek ñu xool manifeste bi parce que bi ñu lay jox bokkut ak bi def ci gare routière bi sooy dikk ñu xool ni heure sàngam oto sàngam moo fi jógoon heure sàngam la départ mi ngi nii ñu daal jël numéro téléphone woo suñu préfet woon wala gouverneur yi kenn am na ci cas fii ci seen gare routière bi leen ñu génne dos dossier démb wala bërki démb dikk tegal ko ni ko mi ngi nii fii la jóge dem na mbuur nee na quartier sàngam la jëm. boobaa ñu defar euh, amul ay cas ci chauffeur yi. non wax dëgg yàlla amul dégguma ko ci amul kenn benn chauffeur boo xam dama naan la cas bi lam amu ci. Euh, accident yi bëggoon nañ ci wax aussi parce que bon loolu aussi day day loo xamante ne lu yitteel ni ñu la que màggal bu daa gaawutu ji wut koppar dina tax gars yi de fois ngeen di sacrifier ay bakkan ba accident yi gis nga fii ay jamono daana jégg dayoo. wala jërëjëf Serif accident yi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jeexal. Euh, bu yàggut matagut un mois le préfet bu Diourbel woote def évaluation ci situation daaw jéeg ak situation ren. Mhm. situation daaw jég bi ñu ko defee. mi ngi mel ni amoon nañ 48 morts situation daaw bi ñu ëgsee 16 morts la ñu kon mel na ni wàññiku na. dañuy ñaan benn bari na. sa non waaw foofu lañ jëm si xam nga ñun dañuy ñaan xam nga ku def 48 ñu def ñu def situation nga def 16 mais lool wàññiku na mais ñaanuñu yàlla kenn di ci sa bakkan di ci jóg. parce que ñun ñi ciy jóg ñun dañ cee bokk parce que ñun ay chauffeur lañ am na chauffeur yoo xam dañuy bokk ci kaa yooyu waaye waxuma chauffeur mais ñun dañoo am doom am njaboot comme ni ngeen ko amee. suñu sañoon képp ñun nag li ñuy lancé appel mooy. mais mais li tax ñu koy wax mooy lu ci bë bu xoolee cause yi. Hmm. responsabilité chauffeur moo ci ëpp. dañuy bëgg def ay ñetti bi. coono yeeg njëkkante yi mooy responsabilité chauffeur bi rek. waaw la. même ci biir garage bi mooy xam ne ni tey yéen seen biir. Hmm. Euh, lu ñu war di euh, bàyyi xel bis bu nekk la même ci biir garage bi. Hmm. Euh, warul jaadu je pense yenn état oto yi contrôle ba ca war ñuy bàyyi oto sa diggéen ci garage ak yenn état yi bala la ca war entretien amul waa xam nga nit ki bu fekkente ni dafa amul doole li nga xam moom rek laa am moom lay mën a génne te loolu lépp ñàkk doole ki mooy li ñu état mën a jàppale mooy changer parc bi mooy dindi li ngay wax nii mooy jël suñu oto yu màggat yooyu jox ñu oto yu bees ñu nangoo jël garantie bi di ko fay bu boobaa ñu tegu ci aw yoon boobaa nag képp koo xam ne jëloo say matukaay ci wàllu tali bi ba nga xam ne accident bi yaa ko créé boobaa yoon dafay dikk tegu ci sa kaw mais xam nga nit ki tamit li nga xam moom la am rek moom lay duggee marché te fi ñu toll nii pour l'instant si Sénégal lañ nekk néew ñu réew moo xam dafa développé ci suu développé lañ nekk am na développement boo xam ne ci état la war a jiitu moom mooñ ci war a jàppale suñu jàppale nag ba nga xam ne jël na suñu oto yu màggat yi jox ñu yu bees boobaa li ngay wax ni dina mën a def leneen beneen bi ci topp mooy ñun ñu ngi góor góorlu ci lu ñu man képp koo xam da ngaa oto bu màggat ñuy dem ci banque di la garanti pour nga am oto bu bees man koo change ñu ngi ciy góorgóorlu mais nag daanu dañu suuf bees surtout ça mais entretien ci ci yenn accessoires yi non yenn non bagage yi ci oto yi merci non entretien bi maam biri ma ñu ngi ciy góorgóorlu lu ñu ci mën ndax fi ñu toll boo demee ci biir gare routière fi ñu toll nii ma lay wax nii nit ñi ñu ngi dem di defar frein di def direction defar lépp luy organe ci oto ñu ngi koy defar te képp koo xam ne xanaa xamoon ne chauffeur moom paanam pertement la panne rek moo njëkk di doon pertement waxumal mais paanam pertement la su deful oto bi tamit su demee yoon bi conséquence bu ci dal naam client bi dina moo koy njëkk a siiwal waaw gis nañ bu jegee itam paas yi dañ koy yokk loolu moom chaque année neen euh, jaaduwul duñ ko defati mais dañuy gis ne léeg-léeg sax euh, nga dugg ci woto bu mag fayee nga gis ku ñëw ne la ñaari junni laa fay loolu aussi waaw loolu du ma du ma du ma ne jaaduwul du ma ne duñ ko defati du ma ko mais du ma li may wax daal mooy li ma mën a assuré mënumaa assuré ni nit ñi duñu yokk paas. mais lan moo tax ñu yokk paas. waa xam nga ni xam nga lan moo tax ñu yokk paas. état bi am na ana boo xam ne dafa dafa ñoo woon ñu ñëw mun ñëw bu fekkente ni da ngeen di yóbbu nit ñi retour dañ leen di solal carburant xam nga oto bi màggal benn benn vent rek mooy dox da ngay jëlee ñi di Dakar di leen indi Touba wala nga jëlee leen Kaolack di leen indi fi wala nga jëlee leen di leen indi mais retour mais su fekkee oto yi dañoo ñëw Ah, ah par exemple li ma mën a wax mooy sept place boo xam dafa jóge Diourbel Diourbel Diourbel Touba 1000 francs la nga jëm sept période 7000 francs la ngay sol 10 lan moo des 1000 francs nga dagg droit de stationnement mais xaalis bi jeex na kooku su fekkee ne dan la day daw ci loolu du ko du ko du ko du ci daw li mu war a def nag mooy état bu fekkente ni comme ni mu defoon année 2012 je crois wala 2010 soo defaan lu mel noonu da dikk ñu pointé la soo dikkee ñu jox la 10 litres mais dañ koo bàyyi bu boobaa ku yokk paas yaa ko teg ci mais su fekkee nit ki dafay jël client yi jëli leen Dakar 65 personnes kenn ku ne fay soo boole nag ñaari paas yi nag daa di koy teg muy li nga xam mooy aller retour doy naa yem mais nag yokk yenn yu élevé yi kenn àndu ci kenn néew ci te man mënu ma laa garantir ni oto yi buñ ko defee client yi ñoo jógal seen bopp ñëw fi fekk leen ni leen oto yi dañuy dem parce que ñun Touba jaral nan man damay toog sama biir client bi ñëw ni ma sa yoon ñëw ci ñun ñoo moom suñu xaalis dañuy fay lu sa yoon ñi ko mën la mais du ñëpp ko mën de euh, loo gis dafa am euh, régulation même secteur bi ah transport bi ko mën rek def pour fixer prix état cëram sax du jël ay carburant di leen ko jox ndax yéen li ngeen def nii voilà yëfu privé ngeen def donc loolu maanaam responsabilité aussi daf ciy baax maanaam jamono ji nga xamante dañ ci nekk ni ñu bëgg a dem war ngeen ko mën a organiser ba trouver benn juste milieu boo xamante ni du ngeen gaañ seen bopp wante aussi du ngeen gaañ clients mhm. mais li ñu gis mooy comme ni nga waxee nit ñi xëy noonu am nañ Pastef goo xamante ni jaral na sax dox donc am na lu ngeen leen teg dañ koy nangu ñàkk pexe moom moo tax. waaw waaw li nga wax noonu dëgg la man jàpp naa ne ñun suñu paas sax dafa baaxul jàpp naa ne ki yokku paas nga xam toujours moo koy def mooy Dakar dem dikk Sénégal dem dikk Sénégal dem di 4000 francs lay yebe dem Dakar. confort bi confort bi. d'accord léegi situation yi ñu defal Dakar dem dik suñ ko defee mais lu mu jëlee. loolu société mais euh, loolu société la yéen secteur privé bi non ñun mën naroo doon société xam nga lu tax ñu mën a doon société. Uh-huh. Dakar dem dikk mais gasoil lu mu ko jënd jëndee ko téeméer bu mat pneu bi buy ñëw du ci fay TVA moteur bu ñëw du ci fay TVA fay ci dara ba pare paasam dafa yokk moom moo waroon a gën a dimbale client bi. mais non du Dakar dem dikk am na Sénégal euh, moo tax li ñuy wax euh, euh, yéen commerçant yi li ñu leen di wax maanaam toog di seetaan ba ay waa bitim réew ñëw fi indi fi grande surface uh-huh. population yi nga xamante ne mooy consommateur yi fu ñu gis qualité fa la ñu dem uh-huh. du rek Dakar dem de gis nañ fi ñoo xam ñi ngi ci transport nekk dans le privé am bus yoo xamante ni mucc na ayib climatisé confortable uh-huh. respecte heure bu ne heure saa leen di départ heure temps leen dem nga xam ne réservation lañ def yéen nag depuis des années yéen a ngi ci transport bugg leen a jóge ci situation boobu donc nit ñi mun leen see fekk si jàppale leen ñun ñun damaa jàpp ne ñun état bu Sénégal sax dañoo war a jëf jërëjëf ndax transport dafa am ñu ko war a téye téyewuñ ko ñun ñu téyel ko suñu bopp kon su fekkente ñun ñu ko téyel suñu dool liñ ciy dox ak gës néew dañ ñoo war a wax jërëjëf parce que transport dañ koo yor ba nit ñi xemmem ko kenn ko ne di lii ngay wax nii mais transport mais lu tax du ngeen évoluer. ñi ngi ci lu ñu man ndax ñi ngi dajaloo jàpp naa nit doo toog fii. parce que seen regroupement yi ngeen def parce que garage boo dem am na regroupement chauffeur lu tax du ngeen jéem a xool yéen it def ñi ko def parce que gis nañ fi ay salaam transport am na ci ñeneen yoo xam ne ay Sénégal Tour ak ñeneen di yëngatu ci transport yoo xam ne dem ci dëkk ak dëkk mais mucc ayib non dama la wax organisation boobu ni ñu koy sàkkoo ci commerçant yi dama la wax ni la ñun bépp chauffeur boo xam da ngaa ñëw ñun li ñuy man di àndak yow di dem ci banque yi ñu di leen lebal ñu di leen garanti ñuy feb fay mais oto yi bu fekkente ne téeméer la wax dëgg yàlla bu ngeen xoolee nag juróom juróom benn fukk yëpp yu baax la mhm. ñeent fukk xañ na ñooy yu baaxul cent pour cent nag kenn amu ko waaye boo jógoon ci biir gare routière boo demee téeméer oto yoo juróom-ñaar fukk baax la très bien yeneen fanweer ñoom ñoo baaxul te yooyu dinañ ci góorlu ci regroupement yooyu nga xam mhm. seeni oto doon yu bees surcharge yi mbaa di ngeen ko mën parce que mbas mi tamit àndut ak surcharge même si bàyyi na ne léegi ngeen yàpp place normale gars yi duñ taxaw j'espère fii Touba bi biir gare routière daal li ma la mën a assurer mooy nit bala mu faa génn du fa sii ñun li nu am mooy dinañ jël suñu mesure ba gare routière ni ñu yor ku fa génn doo sii képp koo xam nag da ngaa génn dem ci yoon fekk fa kilaa nga sii sars dafa am koo xam ne moom moo la war a verbaliser jàpp li war ci yow mu def mm-hmm. loolu moo jaadu mais ñun gare routière lañ mën a suivre mais mënuñoo suivre ci terrain bi. parce que amuñu droit. jàpp ni wala wax mais di sensibiliser surtout respect vitesse yi parce que autoroute Ila Touba bi réglé na problème bëri mooy accident yi wàññeeku na parce que collision moo daa indi musiba maanaam daje oto comme ku nekk yow daa ngi daw sa sens léegi li ci des mooy vitesse yi te aussi ñu respecté ko mais bu gaa yi respecté vitesse yi mooy waral saaraan yeeg ñàkk nelaw yeeg indi fi jëya autoroute Ila Touba ñu ngi ciy remercier kenn amul droit daw ci cent vingt cent dix la boo ko jëlee Dakar ba fii dafa gars ah, yi auto transport ñooy bi ci man bi ciy daw lépp cent amut loolu suñ ko xañ ne particulier wala yeneen oto yi mais auto transport moom bu ci daw cent bëriwut loolu moom ñu ngi ci yedd suñu bopp xañ ne nag léeg-léeg ñu am difficulté ci wàllu réewande wala ci wàllu oto boo xam ne dañ ko war a defa def bu mais du xel boo xam ne mooy yàq oto nit ndax autoroute bi cent dix yi ñu wax auto mhm. transport duñ ko fa daw kon loolu mooy li nga xam ne moo fa am te ñi ngi wax képp koo xam ne ab chauffeur ga wala transporteur nga ci màggal Tuubaa gi jëm si na nga xam ne client yi gënuñu la waaye gënoo leen nga fexe leen ne jële ci jàmm andi leen ci jàmm te kenn ku ci nekk la war sa diggante ak moom sa diggante moom ci àq nga di ko yelloo foofu euh, benn rebondissement rek muy euh, autoroute bi euh, maanaam vitesse bi lañ kaa limité am na ñu fay dawee xël comme ni mu ko waxee peut-être dañ nekk ñoo xam ne ñuy échappé radar yi wala buñ gis que ñu def leen neex mais yi faati foofu la solo. parce que ñiy faral paan ci kaw autoroute bi. des fois ah. ay particulier lañ. c'est compliqué ñaareel seen am fu muy yem. ci hmm. maanaam accessoires yeeg matériels yi. donc entretien bi am triangle yeeg affaire yi ci war yëpp pour nga mun leen aaj nga taw ba ay paan rek ngay dëkkee ci kaw. Hmm. te jafe-jafe rek la lay andil. donc matukaay boobu ak prévention boobu je pense que c'est élargi. Hmm. au delà même ñiy def transport en commun yeeg ñooñu. particulier yi également ñu moom gis ku la dimbali léegi du la dëgg la bu dee ci autoroute bi sax xañ na jël nañ ci ay matukaay ba nga xam ni ñoom am ay de surveillance am oto xam ni ci diggante bi mais su fekkente nag dafa nekk boo paanee de bu ñu lay lonk da ngay fay ñetti junni bu fekkee nag faa def benn temps bi ñëw di ko jël si pour nga jot cota bi faaw nga bind benn réquisition boo xam boo defu naan tribunal nga ko jëli wala yéen du ngeen góorgóorlu chauffeur yi ilaa Touba bi xam nga concession bi état bi mi ngi woo privé bi ngir ñëw dugal seen loxo ngeen gérer li ngeen di kaas ni mu mbetti leen chauffeur li li am ci chauffeur Sénégal pourquoi mun leen dajale utab capital ñu financé lañ ngeen dem comme ni ko secteur privé nasaraan ñu defee comme chinois yaa ngi dem yaakaar naa Serif loolu sore yàggatul soreetul ndax ñu ngi ciy waxtaan gaaw leen loolu kay dajale euh, jëng ministre des transports yàggul rek jeudi bi passe. pour soppi transport. soppi non non man dama ne Ila Touba bi dañu ne. chinois yi dañuy dem état bi bëgg ñu ngi ubbi ngir bëgg sax bu sañoon ay sénégalais yor ko. comme ni waa Sénac yore autoroute. Euh, pare nañ pare nañ pour. pare nañ pour du pour ànd ak ñoom pour ñu jox ñu ko ñun ñu ànd ak ñoom di ko liggéey. te jàpp nañ suñ ko joree tamit jàpp nañ loolu dinañ am. nga may ma tur soxna Faty da ma ma ma remercier ci li nga xam ne président da koo def. Mhm. ci wàllu mbas mi ndax wax dëgg yàlla am na yim ñu digoon. Mhm. promettre na ko am na ñett yim ñu digoon wala ñeent ñett yi ñëw nañ. muy lan vraiment ñi nga xam ne ñooy wàllu tataay lépp loo xam digoon na leen ko ci ndimbal jox na leen ko muy li nga xam ne ci wàllu euh, sëfoor si la. lépp loo xam diggoon ne leen ko ci ceeb ak suukar diwlin ak li muy àndal wala soixante cinq millions yi jox nañ leen ko gare routière yi muy ñi ñuy woowee coxeur travail yi ak ña fay liggéey ñëpp lépp lu ñu leen digoon transporteurs yi moo def fii ci Diourbel te démb rek ministre bi wax nañ ci man moom jàpp naa ne fii ak màggal transporteur dinañ jox loolu nag su fekkee président bi ko diggee woon ba téye ñetti weer dikk indiwaat ko mu indi ko li ñuy ñaan mooy li nga xam moom la diggoon transporteur mu gaaw ci wala balaa màggal justement ak transporteur yi Diourbel ndax ñoom ci màggal gi lañ bokk loolu rek lañ doon wax ñu di leen merci jërëjëf ñu lay sant bu baax sant nañ mooy euh, euh, moom Serigne Sall na sa gars yi di takk masque yi comme yow nga takk sa masque président régional des transporteurs de Diourbel imposé masque mu tàngal mu sedd nañu takk masque non dinañ takk dinañ takk masque yi bu soobee yàlla xam naa daal gars yi li nañ ko parce que ku mën a défendre sa force nga muy noonu <laughs> waaw loolu loolu moo jaadu parce que dama damaa def activité bi lu war a mat 15 ba nekk ci maa ngi leen di remercier yéen ñëpp waa groupe euh, TFM di leen sant di leen gërëm di nuyu Daaru Salaam képp la gërëm ak ngërëm euh, moom la sëriñ bi euh, jox Daaru Salaam boobu muy dëkk bi mu njëkk a ñu leen di nuy bu baax a baax di leen ziar waa Daaru Salaam bi yëpp foofe itam ay leeri sëriñ bi ña nga fa muy dëkk boo xam ne bu bëri ay mbóot la sëriñ Sall président régional des transporteurs de Diourbel moom la ñu doon dalal ci yeewu leen spécial màggal de Touba ñaareelu numéro bi laata rek euh, ñuy dem ci ñaareelu pàcc bi dalal ñi nga xam ne moom mooy Serigne Khadim Amar tey nag ñu fas yéene waxtaanee. Eh, kenn ci cheikh Serigne Touba yi Serigne Paate joor Amar eh, moom nag eh, Baabul Xadim lañu koy woowee moom ma nga tase woon ak Serigne bi foo ñu naan Njarne laata Cheikhul Xadim di dem ci tukkib géej gi moom nag dem na ay bërëb yu bëri bokk fa ak Serigne bi fu ci mel ne Njaareem di leen ko waxtaane léegi ak njaboot gi waxtaane itam jàngum xasida yi laata loolu ñu dem def benn pose bu ndaw dellu siwaat à tout suite